jógee côté euh, Dakar di dem bay jógee côté Tamba di ñëw Dakar ñu daje ci guddi gi vers trois heures du matin nee na ñu ni euh, enquête bi benn bis bi la pënam toj mu dem janoog beneen bés bi li indi lii certainement daw bu bëri amoon na ci ñuy jaal ñi fi jógee ñeent fukki doomu aadama yi xam ñi nga xam ne ñu ngi leen di masawu am si am yëkkati leen ci ci jàmm euh, lu ci am solo mooy président de la république mi ngi ci yoon bi di ñëw jóge Dakar ànd ak euh, premier ministre di ñëw fii ci Kaffrine dégg ngeen maanaam dogal yu mu jëli déjà def na deuil national pour trois jours jox na ndigal premier ministre pour mu organiser euh, un conseil interministériel suba bu neexee yàlla ci ngoon si donc conseil interministériel boobu xam naa dañ ci jële ay ndogal yu am solo parce que il faut ñu mën ci jël ay ndogal ndogal yoo xam ni buñ ko appliqué yaakaar ah mel naa ni dootu fi amati te loolu euh, dana am bu sobee suñu borom secteur transport nag dafa am nu mu tëddee dafa nekk loo xam ni bëri na ñu ci nekk euh, ñu ngi góorgóorlu waaye il faut waxtaan mën a am ndogal yi nga xam ni gouvernement bi jël na ko ndogal yooyu ñuy fexe ba appliqué ndogal yooyu mën nañ ca wax parce que accident yu bëri boo jëlee téeméer juróom-ñetti fukk yi ci guddigi la loolu indication la donc il faut que ñu xool maanaam gare routière yi euh, dem ba dikk bi ban heure la ñu war a ubbi ak ban heure la ñu mën a tëj mais aussi au delà des gares routières am na les horaires nekk ci ay dans des gares privées gares privées yooyu euh, boo ci jëlee ñu bëri dañuy nekk dañ leen di tolérer parce que remplir ñu critère bi nga xam ne moom mën a tax ñu am dégâts publics loolu aussi il faut ñu encadrer ko te telle sorte que euh, euh, ku si nekk booy dox nga doxal ko yoon te loolu mesure yooyu gëm naa ni suba dana génn ci conseil ministériel bi euh, lu am solo rek mooy dañuy lancer appel à l'ensemble des acteurs parce que tant que ñi ngi maslaa voilà di bañ a xool yenn yi lu mel ni mooy amaat rek te te loolu en tout cas état bi moom dootul se dootul toog maintenant bul mel ni dootu di amati daañu ci jël suñu ay mesures appliqué ko ànd ceeg les forces de sécurité et de défense. oto yi dañuy dafa am problème visite technique. Hmm. mais xamaguma parce que gendarmerie def na enquête def mi ngi ci enquête bi waxagul ñi amuñu visite technique mais gëm naa ni am nañu visite technique mais ci wàllum visite technique dañ jàppale na Sénégal ba Sénégal daj Dakar dong moo fi am centre boo xam ne mën nañu wax ni centre la parce que am na ay machine yoo xam ni oto yi bu ñu ñëwee dañuy jaar ci machine yi ñu xool lu ñu war a xool ci oto yi mais boo demee dans les autres amu fa dañu ubbi capote xool yi visuel taf yëngal fii ba noppi nga am service technique léegi nag ñu ngi woon ci processus ubbi ay centre de contrôle technique ci biir Sénégal yëpp processus boobu dana tax dana dañ ko jeexal nag parce que dem ba dikk bi xaw na métti mais mu neex yàlla dans la semaine prochaine ou dans deux semaines tout au plus avec euh, dañu xool avec les services de l'État nu ñu mën a autoriser l'ouverture donc des centres de contrôle technique voilà dans en urgence parce que urgence la mënatul xaar bu boobaa yaakaar naa ni dana gën a sévère te oto yi daañu jaar ci ban dootul nekk loo xam ni contrôle visuel la euh, ni lay après boo defee sa contrôle visuel am sa contrôle technique te loolu day indi sécurité pour askan bi parce que épargne wul kenn épargne wul mbokk kenn épargne wul en tout cas doomu kenn ou en tout cas épargne wul benn sénégalais donc mesure yooyu incha allah comme nous ma ko waxee avec le conseil interministériel bii di am euh, daañ ci taxaw jël luñ ci war jël bu soobee suñu borom